ziyaar mboolem njaboot Seydi Hadji Malick di leen dokkeel weer yu saa yu dugg see muy septembre xel yëpp lay dem ci góor gu tedd boobu nga xam ni waa weeru TV moom la ñu ubbee 14 septembre bi mu génnee àdduna ba léegi ku am njuumte walla nga am loo xam ne yëg la ko wala degaa am kasetam ngay déglu ni seen xaaj Abdou de baax mu dégloo si la waaye maam Abdou soo ko bëggee xam dëgg da wax ni ki ko wuy juru góor wi siiw na Seydil Hadji Malick mooy way juróom wu góor way juróom wu jigéen maam Sofiyatu Aram soo soppee Sofiyatu Aram Bonk day dem ba bokk ak Serigne Fallou Mbacké waaye soo toppee Seydil Hadji Malick dem ba bokk ak maam Maram kon nga xam ne Sénégal benn bopp la El Hadj Abdal Dabakh gane na àdduna en 1904 ci waawoon kër gu mag wala gane àdduna waaye ki nga xamee ni nag moom jàngal na Seydi Hadji jàngal na Seydi Hadj Abdal tabaarakallaahu mooy bàyyam Seydi Hadji Malick moo ko jàngal Qur'an tajwidan moo ko jàngal tamit alquran leeralal ko ko xifzan jayidan naka ko mokkaloon moom seen xaajal des de baax góor gu bëggoon jàmm la góor gu daan arrangé mbiru ñëpp bay arrangé mbiru étudiants yi université bëgg jàmmam googu nga xam ni nekke na ko taxoon na benn këru diine xéewule woon dem na Touba fekk fa di Serigne Abdou Khadim Mbacke radiyallahu taala anhu El Hadj Abdou Dabakh ca ci nit ñi moo daan wax ni bu leen xeeb kenn ñu ni ko lu tax mu ni ñëpp njabootu yàlla ba tax na si El Hadj Abdou Dabakh yàlla joxoon na ko ci dundam ñëpp rus ko ñëpp rus ko ci arrangement lépp lu ñaaw daaw ko fe nangoo fekke daaw ko nangoo déglu daaw ci nangoo participer waaye lépp rafet ak luy boole ak bokk dem na Kawrax kër Baye Niass ngir defar bokk dem na Touba kër Serigne Touba ngir defar ak bokk alaaj Abdel da baax li nga xamee ni mooy xale yi sax dañ daan grève université mu toog waxtaan ak xale yi xale yi bàyyi lépp ñu jàppoon kon góorgóor bu mu de fii septembre dugg si xel yi war a dem ci moom ci 14 septembre bi génn àdduna waaye war na nañoo fàttaliku nag góor gi li nekkoon cofeelam ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax na képp koo xamee ni yaa ngi dund te yàlla royloo woon na Seydina Muhammad ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarjullaha wa yawmal axira alaaji Abdel Dabakh bay na ci aw laccam ba ñëpp xam ni góor gi roy na Seydina Muhammad te rafetal nga te yaatu nga te wàcce boppam nga waaye nag wax yeneen bi lu ni ko dama laa sopp ba cofeel bi jaxasoog sama yàq mm-hmm. ak sama deret ak sama yàq yaa azuli fama le hindi nasibun fi fuaadi daani wala mayla yi nee na ma soppi Seydina Muhammad ba géwuma ko sax maylaa ndax mayla jigéen bi rafet la woon mu ne ni ma soppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam soppeewuma ko jigéen jooju ñuy wax maylaa waaye li ma gën li tax ma ma ma soppi yonent bi ñu ne ko nan nga ko soppe mu ne inna hubba nabi xaalatan rahmi wa irami wa damma duna riyaay góor googu la ñuy fàttaliku le 14 septembre ñu ñaan Sénégal yàlla def ci jàmm ci barkeem ñaan ci réew mi sutura ak teraanga kilifa diine yàlla na fi yàgg te wér di gërëm waa Werdu TV ci seen liggéey bu rëy bi ñuy liggéey l'islam di ko liggéeyal diine jëf tarixa bi yàlla leen yàlla jàppale te na Omar Faye jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu boppam lii du fopp boppam it lii ci kaw lépp ndaw la du la dëkk ci suuf di buur ak dagal lii wàññi ko aw yoonu ci